waa asalaamaaleykum waa Torino Media TV ñoo leen ñëwloon fii seet si woon koo xamante nii kenn du ko présenté muy Abdou juuf macha allah léppam di aar muy nekk fii di bégal doomu aadama yi fii ci Torino partout sax si Italie macha allah Brescia Genova Abdou juuf ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw Pape maa am ngeen jàmm rek. waa ñu ngi sant bu baax a baax a baax. waaw Abdou dafa am lu daloon ci kaw arts yi. Mm-hmm. Euh, rawatina ñi nga xamante ni ay doomi géwél lañ muy am ku yëkkati ay yu ñaaw wax ko ci koo xam ne def naa ñëpp seen jigéen la seen xarit la muy njole taal. tey ñu ñëwoon fii seet si la doon laa jow lan moo ci nekkoon sa xalaat. waa salaamaaleykum mbokki àddina salaamaaleykum bépp artiste rek ak foo mënti ne maa lay ji di la bégg sa wàccuwaay bu mat sëkk. te Pape loolu tey boo ma si sa euh, laajee dinaa si sawar a wax loolu ma que xam nga tax ma si sawar wax mooy man gaawuma jàpp nit gaawuma téye nit si lu dul dëgg su may jàpp nit ma lay wala ma lay téye wala ma lay jox benn cër bi rek danga maa wan dëgg ak sincère ak gëm li ngay def ak xam sa bopp ak respecté sa bopp ak respecté doomu aadama te kon Pape tey lii loolu ñu wax Ndiolé jàpp naa ne waxuñu ko njole aduna lañ ko wax ak képp kuy artiste ak foo mënti ne ak koo mënti doon tey nag dama pour wax waaye mën naa ne samay kàddu tey kàddu bépp artiste la bu nekk fii si Torino ne waxuluma sama bopp damay waxal bépp artiste nag bu ma ko waxee defee ñëpp kenn du ne lu tax nga wax ne damay waxal Torino Torino gépp ay nangu képp artiste bu fi ne rek da ngay nangu muy Pape Ndiolé man xam Ndiolé bi may xam Ndiolé pap boobu njole mi ngi doon njole di jaay mas zeng suma weti kër papa doonu nit ku bëgg boppam nit ku gëm boppam lu njole pap li tax man si qualité yi nga xam ne jàppoon naa si njole nawoon naa si njole muy njole dafa doon artiste boo xam ne daf ku ko xam si dignité nga xam si personnalité nga xam si bëgg boppam bëgg li muy def tey moo ko tax a yegg fii muy yegg kon nag nit du liggéey ba egg fi mu yegg benn doomu aadama jóge fee bëgg xañ bëgg yàqal déedéet te mënu ko yàqal parce que njole am na ñaani waajuram man xam naa loolu ndax Pape Ndiolé si maanaam si am dignité am personnalité njole bi aar métier Sénégal boobu la reyante ba yor super 5 bu ma fàttali ko bi may mujjee dajeeg moom maa ngi dajeeg moom euh, defe naa Sacré-Cœur laa taseeg moom de exactement fa lan tase benn xew mais bi mu ne bëri dugg si xew bi borom xew bi di wax dañu ko man oto laa yor te xam nga ni essence man kenn du ma may ñaar téeméeri ki kii man damay may ay ñaari junni yu bare wax boobu doonoon lu ma nawee njole mu respecté wax jooju respecté boppam gëm aaram ba egsi fii mu si kon defe naa ne kooku kenn mënu ko waxal loo xam ne après doomu aadama yi dañ koy dégg rek ne voilà loolu moo nekk déedéet njole du genre boobu waxuluma ko nak pour bëgg lu ko neex waxuluma ko ngir bëgg tay ji njoole ma mom non parce que li ñuy seex seex nañ ko moy jàmm mais damay wax rek te yalla rek tax man parce que man nonu la mel ko xam Abdou Diouf Baye Fall Abdou Diouf euh, artiste Abdou Baye Fall la ak Baye Fall rek ko ñëw aku talibé kon limay may wax ci doomu adama daf may leer pap boy aadamoo man limu gëna metti ci mom moy buñ ko waxé sax ni Louga la dëkk ni Louga la dëkk wax daf may metti parce que Louga dafa doon dëkk boo xam ne kenn ku nekk Serigne Bamba xam na ne dafaa jaar fi biir jaar-jaaram fu Louga la jaar mu nooy nepp ci moom am fa jàmm joo xam ne moom ba si àddina fu nu waxee dañ koy tudd maam Mbay nekk Louga waa kër Seydou Nooru Taal nekk Louga kon doomu Louga man jàpp naa ne royukaay nga waaye du wax lu bon du def lu bon du jënd lu bon si làmminam kon kooku jàpp naa ne man dëkk Louga wàllu yaan si la rek mais du ko dëkk Louga ndax ku dëkk Louga du wax ju wax ju ñaaw xamu ko fa di ko def kon dama bëgg gaay ñu yeddaat xel yi del si waat waxtaan ak suñuy njeganaay te xam ne wax ju bon dëkkul fam jum fu mu la cosaanoo aadamoo de man biir na mu ni ak noonu may dégg àdduna naan aadamoo am nii ak ñooñu muy tudd booy bi nekk États-Unis man sax xamu moo ko euh, ki njole nekkal moo gën moo gën xaw ma ah man xaw moo ko kon dèjà ñooñu kon man damay wax rek nii te yàlla tax parce que xaw ma mais dama bëgg nit bu ne bu bu wax jugee dal ci kawam képp ko ko mën a défendre mën a wax ngir moom nga wax ngir jikkoom yi nga xam ci moom ngir qualité yi nga xam ci moom ndax Pape Olof Ndiaye danaan juróomi dëkk yi danoo nekk Ndakaaru ñu ne ko yàlla mu ni Gorée Ngor xaar yàlla jàmm gën Mermoz sa benn bu ne dafa am la muy leeral Pape. mais loolu dafa jekk si doomu aadama yi ñu koy jëfe di ko doxee mais dañ ko fàtte indi seen xel bopp indi seen euh, waxi bopp indi seen i kàllaama bopp indi seen lu ñaaw teg ngir di xëy chaque jour suba ba ngoon dul liggéey dara lu dul di tuumaal nit di yàq nit di wax nit loo xam ne ku ko dégg ni la di wax nit nan xoox nan xam ne fii dëkku na fi de dañuy ñibbi dañuy ñibbi te ko xool àdduna ak ni mu demee nii defe naa ni dangaa war a jàpp di julli di jaamu yàlla di ñaan nit ñëpp nag di am jàmm di am tawféex waaye waroo wax lu bon di génn si gimin ji lu bon lu rawatina nag nga dëkke ko njole nag man laay waxal ne ko njole bu mu découragé wu ndax artiste yàgg naa dégg lu ne te lii ñun dafa yàgg suñu milieu bii lu ne la nuy waxal mais nag ñun ñoo ko yelloo parce que ñun ñoo war a jug yee nit ñi indiwaat nit ñi delloo si nit ñi kon buñ bañ ku nu waxal na ñuy nangu te wax tamit ni xam nga Pape dafa am lu nit ñi euh, wax ta duñ ci am lu leen leer xam nga nit ki jóg dem si benn réew def fa presque quatre mois cinq mois man dama defe ni njariñam moo ko fëtee ak fulla ak faaj ak ku xam jolee waaye toogu fa ngir matadi wala ngir ñàkk fulla wala ngir tuutal boppam te njole tuutiwul xam nga nit mënul teral yaayam ba teral yaayam jotee teral yi waajur baayam teral ba mu teral famem yor njabootam ah Pape nga bëgg a jël benn kàddu bu ñaaw di ko teg si moom mënul nekk kooku kenn mënu ko àttee trop njole nag dama lay ñaanal man li ma lay ñaanal mooy nekkal si sa yoon gëm sa bopp xam sa bopp gën a xamaat sa bopp sax na xam naa ne mu ngi si yow gën a bëggaat sa bopp gën a fonkaat sa bopp te xam ne lii daf laa dolli waaye yàqalu la Pape na gars yi bàyyi wax ju ñaaw ji te bàyyi jëfin yu ñaaw yi te bàyyi dégg naa sax mu li ma gën a metti te li li nit kiy man ba ma dalee dégg mooy wax le ba léegi Moussa wax la ma teg sama ba dégg naa rek dan maa envoyé dan maa ni non loolu du wax nit boo amee preuve lu mu leer ne la kii da kaa fekk sax mu nekk si lu bon surtout ak fi jamono toll ni jàpp naa ne war nga kaa suturaam rawatina muy jigéen joo xam ne ba mu juddoo ba léegi daan doole gëm boppam bëgg lu baax rek la nga xamee ngay jël lu ñaaw di ko teg si boppam Pape maa ngi ziar ñëpp maa ngi wax nag njore na gën a góorgóorlu gën a gëm boppam nga xam ne nekk ci te xam ne xam nga ñoo di bu daggul yàgg yàggum dina mos a yegsi Serigne yàlla baax na puissance njore dundal. waaw Abdou Diouf ñu ngi koy jëfal moo ñëwoon doon indi leeral yooyu si diggante. Ah. Ndiolé Tall ak Adamo loolu nga xam ne mooy daw si internet bi kon kenn du Abdou Diouf ars ndaanaan bu kenn dutul euh, présente fii ci Torino ak ci àdduna bi fépp jërëjëf Abdou Diouf doomi Louga ji.